téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak kontaante di addu ngeen di tewlu yéen a ngi ci seen biir émission Vox na ñu ngi ki nga xamante ne moom mooy coach su Mame Less ñu fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu ci lu jëm euh, ci entraîneur yi ak li nga xamante ne moom mooy formation yi nga xamante ne ñoom si la ñu jëm ñoom entraîneur mbër yi. ak ci li nga xamante ne ñoom ñooy seen euh, mooy seen euh, association bi nga xamante ne am nañ ko bu ñu jógee ci loolu mbokk yi danañu euh, waxtaan ak coach bi ci li nga xamante ne moom mooy làmb yi nga xamante ne si la ñu jëm déwén moo xam muy ëmbët seen Modou Lo Balla Gaye ainsi de suite ñu fas yéene décortiquer tuuti affiche yi nga xamante ne ñu ngi koy waxtaanee bëgg nañ cee jëm waaye balaa loolu yëpp ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi ñu dugg ci waxtaan bi salaamaaleykum coach Mame Less Euh, maaleykum salaam Cheikh Omar auzu billaahi mina seytaani rajiim maa ngi leen di nuy yéen waa Equivox namoon naa leen ndax làmb ji tëj na mais daanaka day tëj rek ubbiwaat encore une bonne une fois encore di nuyu sumay frère suma rakk Cheikh suma mag laay Jóob depuis Toulon ama sumay xar yi nekk Espagne di ma bëggee ndax àdduna booy wax nit ñi day leen wax lu leen di jariñ mm. ku mel ne Modou Lo bi nekk Grenada Mass mi nekk Grenada Cheikh Diop mi nekk Grenada ak Khadim Diouf mi nekk Espagne su may frère Malick magasin bu mag bi nekk Géejawaay fa laay toog ba heure quatre cinq heures heure entraînement foofu laa jaayee uskutoore yi waaw moo foofu la fan si club de base bi mais bi nekk grande Dakar mooy bu mag bi bi nekk Marsam jaaji moo ko yor ma man man maa la ëpp ay man amaguma sax fan si club yow nga am. maa ngi yow bokkuñu man sama fan si club am na sax ku ñaan mbay wëndeelu kooku mooy mooy wëndeelu fan si club bi moom kooku moom dafa mooy tuur wëndeelu mais nag dañuy waxtaan rek te dëgg rek tax. di waxtaan ngir làmb jëm ci kanam. voilà euh, coach ngeen am li nga xamante ne moom mooy association da am association euh, association bi nu mu tudd lu ko tax a jóg. waaw xam nga buñ ma gisee li ma sol nii. Hmm. danañ xam ne tey entraîneur yi laa toogal. du nuyu association nationale des entraîneurs du Sénégal euh, jiital ci Mbaye Diallo jiital ci Aliou Ba Mbaye Tine sama doyen mbay Ndawaan sama jëwriñ bëgg fàllu sëriñu Mbaye Tine la donc gars yi ñëpp ñoom Pape ñoom Matar xam ñoom Bada Dione ñoom ñëpp ñi nga xam ne ci association bi lañ bokk ak sama sama xarit Bira Baye Bira xam ñoom ñëpp nga xam ne. ci association bi lañ bokk nga xam ne entraîneurs yi ñoom ñëpp xamante nañ seen biir ñu ngi déggante ci seen groupe whatsapp tey ñoom ñëpp seen toog laa toog seen seen toog laa toogaay nii euh, même Pambay mi nekk rek énergie Arona mu nekk waalo Cheikh Ñaa. bari nañu bari nañ bu ma doon lim duñ jeex. mais association bi lan moo ko tax a jóg lan moo tax ngeen daal di dajaloo ne da ngeen di créer association. Euh, xam nga association bi da ngay am 2 mois yoo xam da ngay def stage boo defee 2 boo ci génnee ministre bi dana la fekk CNG jox la diplôme raaye boo xam ne yow mii war ngaa écrit bi nga nekk war nga faa mën a tàggat say mbër euh, di gërëm aussi bat ji mi nga xam ne daanaka xam-xamam da koy partagé ñëpp entraîneur yi fa nekk day jóge cees bàyyi yitteem ñëw tàggat entraîneur yi fa nekk ci xeetu bëre wax leen ne leen lii moytu leen ko lii def leen ko nii lañ war a jàngalee xale nii lañ koy nii lañ koy nii lañ koy entretenir ba xale bi dégg daale donc looloo tax stage bi di am ah, waaw waroon nañ ko def ren ci mois d'août bi mais am na ñu bari ñoo xam ne indeeguñ seen i këyit alors seen association bi euh, yéen yi nga xamante ne yéen a ngi dugg ci formation yooyu lan ngeen lan lañ leen di former ci ban façon euh, formation euh, la day am étude am théorie am pratique da ngay pratiquer comme ni mbër di pratiquer kooku bat see ko yor maanaam da ngeen di jàng bëre bëri ngeen di fay jàng. dañ leen di dañ leen maanaam bu ne booy booy booy jàng dara dañuy moo dañuy boole lépp maas nuun gi dañ lay jàngaloo bëre. xool ni ngay préparer mbër mi ni nga war a préparer mbër mi loolu lépp ci formation bi la bokk pendant deux mois tous les week donc préparation bi mën naa ci dégg ni musculation dana ci jouer endurance dana ci jouer cardio loolu yëpp dana ci jouer même day am lit gréco day am tapis boo xam ne da ngeen fay jàng lit gréco non loolu mais bu weesoo loolu musculation xam nga beneen domaine la. ndax da ngeen ko ciy jàng ni mbër di ak gagné doole laa wax bu weesoo mën bëre bi. xam nga loolu gannaaw stage bi ci biir stage bi nga koy jàng boo ñëwee léegi nag ñu doog la yóbbu ci tapp bi léegi nag nga doog a def lutte gréco-romaine mais musculation salle yow mii nga xam ne yow tàggat nañ la ci ba nga dégg daal yi yow léegi boo demee li ci des yow yaa ko yóbbu sa écrit. Ah, coach dañuy seetlu ni yéen ñi nga xamante ne yéenay euh, yéenay entraîneurs yi. bu mbër bu demee ba dégg yenn daal yi da ngeen di faral di am ay jafe-jafe soit ñu séparé yéen wala ñu dem xooli ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen xeetu entraîneur yoo xamante ne bitim réew la ñuy nekk euh, lan la seen formation bi moo amul yenn niveau yi wala. Euh, xam nga loolu maanaam dinaa ci wax bëgguma ci woon wax waa yàlla daa bëgg kuy wax dëgg euh, boo xoolee mbër mi ba muy 30 kilo lay nekk ak yow ngay ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci kóllëre bu ñëwee ne la coach lu ñuy liggéey nga ne ko defal nii defal lii léeg-léeg muy saddoog yow dóor la nga gaañ yow mi entraîneur bi nga yóbbaale ko mu ñëng parce que comme yow yaay éducateur bi boo jëlee yenn kuy léeg-léeg da nga koy accepté nangu ko xam nga di ko di ko di sooxaale moom di ko gunge yaa ngi dégg mais mbëri yi jikko yi ñu jël temps yi dafa dafa dafa dafa dul dafa dafa dafa dul mbëri jikko joo xam ne jikko ji avancé loo nit la ëllëg parce que nit ki mënta ànd ak yow ci kóllëre yar la ba ngay xale boo ñëwee ne ko kot suñuy liggéey mu naan la soowal marsal kanaaral appui avant am kontaagal bëre nii ngay def bul def lii lii du xeetu bëre bi nga war a bëre nii nga war a bëree ba mbër mi dégg daal yi mu commencé yow mi nga xam ne yaa tax mu dégg daal yi yow su bopp yow la njëkk a yilif hmm. wala mu seppeeku wut ñetti copain wala ñeenti copain ñu ko sa entraîneur bi xamul dara te ba nga matee 40 kilos ba mat bëri goog lu topp yàlla ak moom la booy gërëm doo ko gërëm maa ngi gërëm suma yaay maa ngi gërëm suma papa damaa bëgg sa yóbbu sama yaay màkka damaa bëgg yóbbu sama nijaay màkka waaye entraîneur bay sonn ci yow doo ko gërëm doo ko sant mais mais foofu foofu erreur bi est-ce que du yéen ñi nga xamante ne yéen a yor xale bi bu dara dool dara am na benn euh, base boo xamante ne yaakaar naa boo leen ko ci defee aussi booy bi du du am réaction boobu est-ce que doo leen dem ba benn moment ngeen nangu gone yi yilif leen ba pare ngeen fan booy yi aussi est-ce que du looloo tax ngeen di tiitaroo booy yi aussi. man ku ma xam-xam la dama am sama gëm-gëmu bopp. waaw te lii nii góomu deewaale li ci biir équipe yi. écrit boo dem tey entraîneur boo laaj tey jafe-jafe bii diggante moo mbërëm am na ko booy ñooy dem ba nga xam ne dégg nañ daal yi nekk nañuy champion te avant ñu nekk champion am na kuñ doon àndal ñu ber seen ñaari booy wala seen ñetti booy di ànd ak ñoom ñi ko def bari nañ ci mbër yi mbër mu ko def nag ñaari la plupart du la jig man sama succès bopp laa gëm man duma dox ci succès jaamur lu mu gañe gañe gañe gañe mm-hmm. xaalisam ay mbokkam la koy def boo ko boo ko doon wàññi ci mbëri Sénégal yi benn nga ci wàññi wala ñaar du ñett. yuy jàppale yuy jàppale seen entraîneur. Mm, benn nga ci wàññi wala ñaar du ñett bind ko téere. kon yéen oto yu bari yi amoo leen ci. entraîneur Sénégal yëpp mën nga dem benn benn laaj leen nee naa la seen biir écurie la fa nekk góomu deewaale la xam nga nit ki da ngay am bëgg-bëgg am volonté man dama bëgg sport. Mm-hmm. pratiquer ko génn ci xool génn ci gëstu ci ay xam-xam dellu si waat Sénégal. donc am na ci loo xam ne man plaisir moo tax ma di ko def bu dee ay moyens am naa ko bu dee lu may déplacé am naa ko yaa ngi dégg mais am na ñeneen ñoo xam ne maanaam li ñu yaakaaroon ci mbër mi di sonn ci mbër mi di paasal di paasal seen xaalis ñëw ñu lay dóor sado nga jël coup yow mi entraîneur bi nëbbaale ko di ko muñaale mu naan la gaañu nga kot su nga ne ko non maanaam dala waroon delloo njukkal mais mbër moo wax Sénégal ñu ne la non mbër mi amul kóllëre wala mbër mi day fecc kóllëre wala mbër mi nangam wala mbër mi nangam loolu war nañ ko dépasser. mais est-ce que aussi yéen ñi nga xamante ne yéen nekk ci écurie yi ngeen gérer seen ay écurie benn moment. est-ce que am ngeen ay taxi yu wóor su ma waxee am na ay taxi yu wóor man su ma nekkee xale ñëw ci écurie bi bëgg a bëre ñu ne kat Mame Less moo jiite écurie bi mais su ma ñëwee normalement war na am benn taxi boo xamante ne war naa ko faa jëlee boo xamante ne da ngay signé ma signé pour ëllëg man sama écrit sécurisé naa ko xaw ma nag beneen écrit mën naa am beneen écrit def noonu mais man man laay wax man sama écrit sécurisé nañ ko ba nga xam ne euh, njàmbe bi nga xam ne moo nekk CNG nekk administration bi nga xam ne moo nekk CNG mbër mu fi def tolof tolof wala mbër mu fi def jéyee man la ñuy woo ne ma sa mbër def na nangam dëkk sàngam xeex na fa wala nangam na ñëw commission et discipline donc yeneen entraîneur yëpp noonu la ñu def man du yor xale ba xale bi dégg daal damay jël sama fiche technique bind sama mbër yëpp mais entraîneur am na ñoo xam ne dañoo xamul ba boo leen waxee dara dinañ ne CNG moo ñu war a protéger no yow yaa war a protéger sa bopp. à la base laa wax à la base man tey mën naa comprendre ni mbër mi bu ñëwee war ngeen a bind ak moom contrat boo xamante ne day ne mbër mi bis bu gañee cent mille mën ngeen koo baal parce que mu ngi doog a jóg mais bis bu demee ba commencé am un million. war na am benn pourcentage 10 pour cent wa boo xamante ne ci écurie bi lay des. mais dama gis ne boo gisee ma ne la tey entraîneur yi may waxal tey bëgg ñu sécuriser seen écurie yi ba nga xam ne mbër du jóge ci bii écurie dem ci beneen écurie ci gratuite. loolu ñoom ñoo ko war a bind lettre bi ñu war a bind la xam na ñaata mbër la ñoo ñoo ñoo nekk écrit sàngam ñaata mbër ñoo nekk écrit nàngam ñaata mbër ñoo nekk écrit nàngam mbër yëpp bu ñu ko bindee sécuriser la parce que mbër muy ñëw da nga jox sa photocopie 40 da nga joxe sax waa voilà donc xam nañ leen ñu jël ko déposé ko au niveau du CNG nga xam ne lii sécurisé wu na léegi nag mbër mu ci dem ba naan damay jéem a génn naan damay dem beneen écurie léegi nag boobaa cause libératoire bi ngeen négocier ko. d'accord parce que loolu moo mooy tax mbër yi. xaw a réguler quoi parce que bu dul loolu mbër yi mbër yi. du ñu normal dañuy parce que. léeg nga toog ba ci yàgg mbër toog ba ci yàgg ne ko damaa bëgg dem benn écurie ndax fii sentiru ma sama bopp. fa nga sentiru sa bopp fa nga fa nga déggee daal amatul leneen beneen écrit booy dem ba wane fa lenn yaa ngi dégg parce que wax du neex kenn ku nekk mën nga cee gis sa bopp naan kii moo tax may wax non dañuy wax pour l' ensemble des entraîneurs du Sénégal l' ensemble des équipes du Sénégal mbër am kóllëre diggante mook entraîneur am parce que entraîneur ba muy ñëw 17 ba 19 pendant des années gisul yaay gisul papa gisul ndijaay gisul maam gisul bàjjan. Mm-hmm. mais mais mais est ce que benn moment aussi hmm, comme li nga ko waxee écurie boo dem góom baa ngi fa gombu <laughs> gombu deewaale la mais coach benn moment aussi est-ce que niveau maintenir champion au niveau ngi fii parce que champion mën nga kaa liggéey ba mu am yenn masse musculaire yi am yenn poids yi am dégg daal yi mais est-ce que seen niveau am ngeen niveau boo leen di maintenir boo yi au sommet su ma bu lu tax boo yi di dem à l'extérieur di liggéey Hmm, di am foofu ay coach de euh, ay psychologue di am foofu ay ay ay ay entraîneur yoo xamante ne ci ay pacc pacc yu bëri la donc di dolleeku mooy am na fenn foo xamante ne peut-être yéen foofu ngeen limité wu wala. mbëri kañ lañ commencé voyager. waaw yàgg na tuuti. bonne question. mbëri fii lañ soqi ko. Mhm. di entraîner fii. Mhm. di marché Canaar fii. di soo fii di dem saal yaa ngi dégg loolu opportunité la. peut-être am na ci ñoo xam ne temps de récupération bu ñu amul Sénégal bu ñu demee foofu mun nañoo profité di yéem a yokkaale seen masse tuuti loolu d'accord naa mais coach man xam la ma seetloo. Ah, ah, ah. coach maa ngi koy maa ngi koy def démb émission ak coach Max. coach dama jël ñaari mbër rek. Hmm, mbaa ñett. Gris doo laay jël bi muy bëreeg Baboy yaram bi sonal ko lool. il a fallu mu dem Espagne gars génne yaram bi. mu ñëw face à Eumeu seen mu indi yaram bu doy waar. foofu lañ ko defaraatee gannaaw bi mu xawee jël poids bu baaxul. mu gàddaay gannaaw mu feebaree ak yi ci topp yëpp trois ans mu nekk ko fii Sénégal di ko liggéey mu ñëw face à Gris Bordeaux indiwul dara à résistance bu ndaw ak euh, jom hmm, gérer combat bi mu dem France def fa trois mois mu ñibbisi kenn attanu ko Modou Lo pareil face à Balla Gaye yéen entraîneur a ko yoroon yóbbu ko ay Espagne yóbbale ko ak six ou sept mbër ñuy dal ci kawam ba mu usé mu ñëw Balla Gaye tël ko mu del États-Unis ay tubaab yor ko trois mois mu ñëw indi masse musculaire bu extraordinaire loolu tax ma leen di laajte est-ce que niveau bi maintenir champion bi au niveau yéen a ngi fi am ngeen ko. déggoo ma foofu niveau musculation saal la foofu 10 pour cent la fii 50 pour cent la wala 90 pour cent parce que lépp fii la contact bi fii la. mais foofu dañ fay contact non fii la. dama ne la foofu saal baa fay ëpp. li ma la wax bindu ko téere. dama ne li ci des fii la. mbër dina jëlee volume États-Unis wala jëlee ko France nga ñëw Sénégal fii ñu wàññee la ba nga réguler. Ah. ba nga normal. Ah. kon donc xam-xam baa ngi fi. ki tàggat nee naa la ba ngay 40 kilos. bu dëgg rek taxee ñuy wax c'est pas la ñu naan day dem France ak day dem États-Unis day dem fem opportunité la pour ñoom. Hmm. yàlla mi ngi leen ci ubbil ay buntu. nañ ciy dem ci jàmm di ñëw ci jàmm mais la. Hmm. diggante mbër mi ak entraîneur bi damaa bëgg mbër yëpp jox cër seen entraîneur yi. ak ku mënti doon. ak koo xam ne seetaan nga émission bii parce que nee naa la dafa bëri ci écrit yi da ngay yar mbër. toppatoo mbër di ci sonn ñu yàkkale ci lu mel ni xeme. di la wax naa danga koo faral waaw dangay ànd ak moom yaa ko bàyyi ci lu mu nekk te or ko da nga bëgg rek mu dégg daal mhm. waxuma pour xarab nit waxuma pour xarab kenn waxuma pour xarab benn mbër mais. dama gis ne jàngoro juy dox ci biir écurie yi la jàngoro joo xam ne écurie seen bopp am nañ ci problème loolu et que du ma dong keneen ak keneen ak keneen ak keneen. lan mooy seen taxawaay yéen bu boobaa. bu mbër defee loolu lan moo war a doon seen taxawaay bu mbër defee loolu dama koy seetaan. da ngay toog seetaan du ma ko dàq du ma ko koji du ma ko gàttaloo heure bu demee ba jaaxle dina dellu si waat. doo ko koji maa la ko wax ponkal boo ko dàqee noo koy jotee. xaw ma ko ponkal mu lay réer guddeeg bëccëg foo koy wëree. nañ am cër. am kóllëre te man bëgguma nit yar la ba nga am succès ba nga xam ne yow mi sa succès feeñ na nga ne kama tàggat ba mu am succès tekkul dara. du yoon yoon waaw loolu daal lañ bëgg mbër yëpp gën a jox seen cër entraîneur yi parce que ñëpp a ci am jafe-jafe. fi mu toll bu ma la doon limal yi ci am jafe-jafe bari na. mais ñu ngi leen di yóbbu màkk quand même am na mbër yu yóbbu seen entraîneur yi màkk ñi jënd leen oto quand wala. bu ma ko gisee yaakaar naa yaa ma ko wax wala boog boo ci xamee kenn nga wax ma. déggoo li ma wax nee la mbër yaayam papaam mbokkam mais entraîneur bi sax très rare lay daan ba gërëm ko. ah bon très rare. seetlu li ma la wax xoolal émission yi ñu tourné yëpp ci Sénégal nga nga nga déglu mbër mi très rare la ko ci mbër mi def te mbër mu mbër mu ko ci def mbër mu am maturité lay doon. Mm-hmm. parce que am nañu am gëm-gëm seen entraîneur. am na ñoo xam ne tant que seen entraîneur man man ba ma nekkee mbër man nekkoon mbër tey entraîneur bi yaram bi ma nekkee 40 kilos dëgg dëgg neex yàlla bu may jël combat sama entraîneur war na ko yëg am na mbër yoo xam ne seen entraîneur du yëg seen combat maa la ko wax bind ko téere dégg ma laajaat laaj yeneen entraîneur damay wax rek ngir couleur entraîneur yeeg diggante ñoom ak mbër yi nañ am solidarité mbëri nañ am solidarité seen entraîneur jox gëdd seen entraîneur xam ne ba dara dul dara ñoom ak entraîneur yi la ñooy ànd guddi ñooy ànd mbappat ñooy ànd bëre ñooy ànd làmb kon mun leen tàqalikoo nañ am yëg-yëg ci ñoom xaalis bi ñuy mos nañ ciy mosal sama xaritu entraîneur yi ak yow sa bopp non man nga daal di ma ci mosal man maa ngi sant yàlla <laughs> man maa ngi sant bu baax ndax ndax lu bëgg a war dinaa ko ma bëgg a dem dinaa dem waaw jarul wax sama bopp mais dama ne la même bu ma yoru dara maa ngi sant yàlla mais dama ne suma xaritu entraîneur yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk anelse jàngaro jooju ju dox ci écrit yi nañ ñaan lii may waxtaan nii rek mbër yi am considération bañ a wax naan déglul diw mi nga xarab diw wala déglul diw mi nga wax pour diw non non pour écrit yëpp la.